ay baay taxam ñi ngi ci kanamam ba muy woote ay doomi baayam ñi ngi ci kanamam waaye nag sunu boroom tànnal ko ca ñam ko tànnal boole koog ñam ko booleel ci waa jamonoom ñu wuy si ab wooteem ànd ak moom teewul ñoom ñépp kenn ku ci nekk sëriñ bi di sàmmonte worma ak teggiin sa diggante ak moom waaye rawatina ñi nga xam ne ay bokki boppam la moom Cheikhul Xadim radiyallahu anhu wax na ci masaalik luy jëmmal loolu te li ko firndeel day wax ne al adaba al adaba summa adaba wa huwa an taburra umman wa aba teggin ba teggin jeex mooy nga topp sa ñaari waajur wal amma wal ammata wal axal kabir wa cheikha inna cheikha bil birri jadir nee na teggin dëgg mooy nga topp sa ñaari waajur waaye teggin dëgg mooy nga jox worma say baay ak say bàjjan ak say bokk ñi la wër ñépp kon sëriñ bi ma ci nga xam ne mi ngi ko doon joxe day koo xam ne la muy digal nit ñi moo leen cee jiitu lépp lu mas a digal nit ñi ci ñu def ko ci lu baax fekk na mu jiitu leen ci ba noppi loolu nag feeñ na ci digganteem ak ñi nga xam ne dafa bokkoon ak ñoom sëriñ Mamour Anta Sali te ñu féete ko ak mag ku mel ne sëriñ Mamour Diarra wax nañ ni fu mu mas a tase ak Cheikhul Khadim kenn ku nekk ci ñoom ñaar sëriñ bi dana sàmmonteeg moom <coughs> war ma ji dox digganteem ak moom. ngir ne magam la te loolu la ko sharia digal kilifaam la ci wet googu waaye sëriñ Mamor Jaara it dana sàmmonteeg sëriñ bi ci wàllu xaqiqa cër bi nga xam ne sunu boroom def na ko ci moom ba wax nañ ne buñ masaan a daje danañu teg laltu seen diggante kenn du ci nangoo toog ngir kenn ku nekk dafay wormaal moroomam ngir lim doon ci moom ñi nga xam ne it dafa bokk ak ñoom te féete leen mag noonu la leen joxe woon war ma noonu la leen wóoloo woon ci léppam kon mën nañoo wax ne ni suñ boroom waajale yonente bi alayhi salaatu salaam waajal jëmmam ba mu nekk saalix doog a nekk muslix te mbooleem anbiya yi ku fi yàlla mas a yónni ci loolu la la yónni mooy nga defar diggante ñala yàlla yónni ak seen borom jëli leen ca la ñu nekkoon boole leen ak seen borom subhanahu wa taala yonente bi alayhi salaatu salaam sunu borom waajal ko ci loolu waajal boppam waajal ay bokkam ñam doon woo wuy si ko mu defar leen seen diggante seen borom cheikhul xadim radiallahu anhu it noonu la sunu borom dogale mu woote ci biiri bokkam ci jamono bu metti ci jamono bu doy waar waaye yàlla tànnal ko ca ña ànd ak moom mu fexe ba lañ ko toppe woon ci seen diggante seen borom sëriñ bi wan leen te lu leen doy sëkk ña ko wuy si it te nga xam ne duñ ay bokkam waaye bokki lislaamam lañ kazalika bokki boppam yooyu kii ñu tudde bis bi di sëriñ Mbakke Kajoor kenn la woon ci ñoom relation bi doxoon digganteem ak sëriñ bi ak ni sëriñ bi daan jëflanteeg moom loola xëy na docteur sëriñ Xaadim si la dina ci ñëw waaye doy na ci firnde muy sëriñ bi considéré ko muy waajuram di diisoog moom jëlit ci ak njabootam ñoo xam ne da na boole ci waa këram jàpp naa ne wax nañ ni moom sëriñ bi dëkkoo woon na ci waa këram lu mat ñeent loolu nag am na lu muy jëmmal am na lu muy firndeel mu yëkkati ak njabootam jébbal sëriñ bi ñu doon ay dongaam ni ko ñëpp defe fa fu sëriñ bi nekkit mu fekk ko fa gane si ko fa fekk si ko Touba fekk ko ci yéen Jolof mu mel ne kon am na lu doxoon seen diggante donte waajuram la moom teel naa xam sëriñ bi teel na koo nangul teel na koo bàyyi xel te sax wax nañ ni sëriñ Maam Mor daf ko ko féetale woon sëriñ bi nag yooyu daf ko doon sàmm ndax ndeyam ñi nga xam ne dañoo doonoon wëllëre seen digganteeg sëriñ Maam Mor Anta Sali rek sëriñ bi daf doon sàmm loolu ci ñoom rawatina nag koo xam ne daa bokk ak moom ba noppi wëlbati ko féetale ko sëriñ bi kon loolu sëriñ bi mi ngi ko doon bàyyi xel mi ngi doon bàyyi xel. bokk gi mi ngi doon bàyyi xel bokkuk lislaam gi mi ngi doon bàyyi xel teggiin yi nga xam ne mi ngi koy jàngale te moom moo ci jiitu ñëpp waaye mi ngi doon bàyyi xel woor ma ji nga xam ne mi ngi koy jàngale te moo ci jiitu ñëpp ku mel noonu nag woote woote bu mel noonu ci biir lislaam woote ko ci biir yi bokkam sunu borom defal ko ci ndam loo xam ne àdduna bépp teg nañ ko bët mu ñaan yàlla <coughs> yàlla protégeel ko woote boobu ginnaawam ba lu jamono soppeeku soppeeku dara lu koy yàq bu mu tàbbi ci biir woote bi ñi ne ci biir woote bi di ak njabootam moo xam di ay sëtam moo xam di ay taalibeem war ñoo fexe xam loolu ràññee ko ba lépp lu koy tilimal wala mu di ko yàq du jaare ci ñoom kon lam dénkaane woon ca Jolof te sëriñ Abdul Xuddus moom Daarul Muxti di ko nettali mooy kenn ku nekk ci ñun rek lam ko war a sagale lam ko war a delloo ci njukkal mooy fexe ba waxuma yëpp yoon wi di ko jaare ci yow waaye benn baat wala benn image boo xam ne danañ ko sànni yoon wi tam jaare ci yow kenn ku nekk ci ñun war naa fexe ba mooy tandiku loolu li gën a métti nag mooy nga dégg lu ñuy wax ci liggéeyam bi di ko adressé yoonu murit wala ñu di ko adressé sëriñ bi muy wax joo xam ne nit mën na cee sukkandiku di wax ci yoon wi lu ñaaw mu wóor la ne yow lii mënoo ko layal ndax kiy wax kat am na foom mu teg tànkam ba wax te ka wax wax ji ci biir yoon wi la bokk loolu kenn ku nekk ci war na ko wattandiku kon li am solo mooy nañ bàyyi xel ne jëmm la woon joo xam ne fa yónnente bi alayhi salaam tegoon la tegoon tànkam la yónnente bi doon woote la doon woote yàlla la defoon muy buuram mu nangul ko nguuram wane tawxiid yu mat sëkk digganteem ak boroomam yónnente bi alayhi salaatu salaam la defoon muy ab yónnentam wóolu ko jaar ci aw yoonam ndax man abada gayra allahi fa sa yaalamu annahu laa ilaha illa allah wa man abada allah bi gayri sunnati muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa sa yaalamu anna muhammadan rasulu la loolu kon day wane ni mu jàppe woon yàlla ak yonente bi diggam ak alquran jëlale nañ ko waaye digganteem mag mbooleem niti yàlla yi nga xam ne bokk na ci fooram moom Cheikhul Xadim li cër bi di màgg-màgg keneen ku yàlla joxub cër mu nongul la ko lu way am ci sa borom nongul na la loola te wàññiwul dara ci li ko yàlla may kon nañ nangul ñeneen ñi am la leen yàlla may te du tee li ñu am ñu am ko waaye liggéeyam bi nag nañ fexe ba lu ñu mën ci protéger ko ko ci seetal ko ci sellal ko ci wane ko ñu di ko def te bañ a nag bokk ci ñi nga xam ne saa bu seen kàddu jibee ñu ne déggal li murid di wax saa buñ jëfee ñu ne xoolal li murid di def te buñ nee déggal li murid di wax wala xoolal li murid di def mu doon loo xam ne ku ca sukkandiku ŋàññi yoon wi it ku koy layal da koy layal rek ngir bëgg ko bëgg yoon wi waaye nag kay wax am na fu mën a sukkandiku ba mën a wax jégg ngeen ci jamono yu mujj yi yu bare bari yu xew yoo xam ne mbooloo ngi attaqué yoonu murit di wax ci ñoom lu ne te dara waralu ko lu ay jëm yoo xam ne lañuy wax ak la ñuy def ñu ngi koy adressé sëriñ bi te loola wuuteeg li sëriñ bi doon jàngale ci tawhid wuuteeg li sëriñ bi doon jàngale ci charia islamiyya ñii nga xam ne ñoom la ñu tuddee bis bi kon ñi ngi leen di delloo njukkal di leen sant ci teewaay bi di leen sant ci taxawaay bi ak yëggee yittewoo gi di ñaan sunu borom kàddu yi mu néew mu gudd liñ bëggoon xam xamle rek mooy sëriñ bi diglewul lu yonent bi diglewul téerewul lu yonent bi téerewul wuute wuut ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci dara léppam yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam alquranul karim keneen ku ne ci leneen yaa ne ci leneen ku woote leneen yaa woote leneen waaye lii mooy cheikhul xadim radiyallahu anhu yàlla ñu ko yàlla fayal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.